mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji muy tawxiid fiq tasawuf lépp ci nekk moom lañ daan wax ko xam diine bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari nit ñi jàng ko torop kenn nit rek féetewoo lépp di ko jàng dana bari ci moom ñu dal di séddalikoo def li ñuy wax taxasus maanaam rek euh, ñii féetewoo jàng tawxiid rek ñii féetewoo jàng fiq ñii féetewoo jàng tasawuf loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne fiq rek lañ xam jàpp ne ñoom li ñu xam mooy xam-xam bi dong doy na la rek pour nga xam diggante fiq ak tasawuf nga jàpp julli tey wala jaamu yàlla gu mu doon fiq daf naan la boo xamee ndox moo xam ne dara soppikuwul ci moom du meloom du xetam du cafkaam nga jàppe ko jublu penku kàbbar suturaal sa awra béréb bi nga nekk laab li nga sol laab nga jàng faatiha ak saar rukkoo ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñeenti rakka muy wala gee def nga li la waroon kenn amatul lum lay wax te foofu moo lay xamal ne la léegi julli bee léegi yàlla la li muy jëriñ mooy raxas xolub jaam bi bi ngay jàpp lu tax ñu sant la ndox moo xam ne dara jaxasoowul ak moom ndox dafa am li ñuy wax rawxaaniye rawxaaniye ma lu ñu ko mën a tekkee ci wolof moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërmande yàlla wala ngërëmam wala leeram boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi boo taxawee jublu penku kaaba gi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli bi nga kàbbaree woon nga ne da ngaa signé ak yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmalu moomatoo fu dara loo fu def sàcc nga ci julli fuqahaa ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jàmbur ci biir julli ngeen di julli xaalisam wadd danga for ko it gannaaw jëfuloo jëf yu bari walbati koo won gannaaw penku sa julli wér na boo xooloon loo araam it sa julli wér na lépp loo mën a def te sa julli wér na tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbare ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génn ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay ndax neen la kon bi nga xamee ne armal nga yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla yaa ngi déeyaaleeg moom alxuraan ji ngay jàng wax yàlla moo ko njëkk a jàng nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toroxlu bi nga rukkoo lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sag njaam mat na te mooy sa borom moom la foofu toroxlu googu nga fiy fas dafay laabal sa xol am na lu muy jëf ci sa xol boo sujjootee itam li tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam waxtu mu gën a jege boromam mooy waxtu mu këppee ab jëm ci suuf ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf fii ngay dëgg wane nga ne wàcc nga wane nga ne yaa ngi toroxlu wane nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xaq kenn ma ko ma ne sharia moo xamal ne la xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci buntu këram bis bu ne mu sangu ci juróom yoon wala bis bu ne mu fóot ci juróom yoon ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet yow yonentu yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom demee day laabal xol ci muy laabal xolam day mooy nga xam ne bu koy def day toraxlu defe kon nañ ko sante waaye du ki nga xam ne bu koy def aada ji mu ko aada woo tàmm rek day kàbbar xelam di dem ci yeneen ba bu muy sëlmal kooku bu ko borom sotti ne sa julli wér na it waate suuf daañu xam ne kooku julliwul ndax julli dafa war a indi ragal yàlla kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax jullit dëgg na muy demee almuminul xaq jullit dëgg melow war a melowoo ba mu jàngee tawxiid jàng fiq ba noppi balay sóobu tasawuf na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara lu ko néewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee sëyeem itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bi yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko mën day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax lislaam li mu njëkk sant muñu ci jiitu sallallahu taala alayhi wa sallam na as sabru nisful imaan yi mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqari ni mu ko waree ci lu metti ware ko ci naqar lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko waree ci bu nekkee ci xéewal ndax ni ngay muñee ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo bew da ko sant na nga ko war a sante du la tax a rëy du la tax a buuk ci kaw kenn da ngay wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa muñ laaj na julli julli ci boppam maanaam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor laaj na muñ aj noonu naafile noonu jihaar noonu beru noonu ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foo fi xamee ne xelam génn na ci julli gi wala génn na ci yàlla béréb booba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw am na waajtaay wu mu war a waajoo ba lay dugg ci julli gi te bu duggee ci julli gi it am na lu ñu ko loolu dañ ko waxtaane bala nuy dugg ci tasawuf ndax nit ki muñ mooy mën a tax mu sàmmoonteeg jaamu yàlla yi ba am seen mbóot yi yàlla def ci biir képp koo xam ne yëg nga ci sa xol ne am nga sa xol am nag doyadi goo xam ne na nga war a teewloo ci julli mënuloo ko waajtaay bi ñu la sant moo di bala ngay dugg ci julli gi lépp loo xam ne sa xel dana ca dem na nga ko yéwénal sallallahu taala wa sallam génn jëm ca jàkka ja ba mu demee ba ci yoon wi mu dal di wax ku ñuy wax Ousmane ibnu Talha man de fàtte woon naa ne la nga xoram kadir ga ba nu fay jóge ndax day bañ bu nekkee ci julli gi waajooju bu nekkee ci julli gi moom Ousmane wala da nga xam ne Ousmane ibnu Talha laa wax wala keneen koo xam ne fekke woon na loola te dana lekk ca ñam wa xelam dem ci kadir ga loolu moo tax wala fi wax naan bu julli teewee reer teew nañu jiital reer ndax sa xel bañ caa dem gannaaw julli kon déeyaa léegi laaj na bala nga ciy jëm lépp lu lay war a delloosi ci àdduna wala mu di ci delloosi sa xel war nga koo dagg ba noppi alaayiq yooyu yëpp boo ko daggee danga mën a julli mu des nag wasaawisu seytaane maanaam jax-jaxal bi seytaane di jax-jaxal ci sa xol loolu li koy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fàttaliku waxtu woo xamee ne tërën nañ la ci sa buntu bàmmeel war nga bàyyi xel ci laaj ko bi ñu lay laaj ci sa bàmmeel ñaari malaayika yi war ngay xalaat bis pénc boo taxawee ci kanam yàlla loolu moo tax yonent bi ne nit day dana julli ba sëlmal te duñ ko bindal sax genn wàllu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax di ko wax di wéy di wàññi ba nga xam ne dana wane ne nit ki daal xam nañ ne julli gi coono bi rek la ci am naka noonu asaka mu ñëw tax nit génne ko ne ñu alal shaqiqu rooxi dafa sax ci roox li tax nit ci génne ko gëm yàlla dëgg lay doon waaye bu xamee ne day laabal li des ci alalam day laabal xolam te ngërëmal yàlla la ciy wut dana am muñ googu nga xam ne mooy tax mu mën a génne asaka doomu aadama bëgg la te bérébam ci nit mooy xol ku nekk xam na ne xol mooy bëgg liimaan maanaam ngëm itam fii bérébam ci nit mooy xol ñaar bu ñu bokkee lenn di ko xëccoo te mooy alal wala bëgg àdduna muy xëccoo xol moog ngëm la ëpp doole rek mooy wat bi sallallahu taala wa sallam ne raaytu abdurahman ibnu awfin yadxulul jannata xabwan gis naa saaba bu ñuy wax abdurahman ibnu awf muy raam di dugg àjjana olamaa yi duñ ko firee moo di dañ ne abdurahman ibnu awf ku bari woon alal la dafa bari woon alal lool waaye ngëmam itam ku réyoon ngëm la ku sonn ci lislaam la ku toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te eh, li ma waxoon nag ne alal xol mooy saxuwaayam ngëm itam xol mooy saxuwaayam bi nga xamee ne ngëmu Seydina Abdourahmaan ibn Awf boobu mi ngi koy xëcc jëmee àjjana alal ji di ko xëcc delloo si àdduna waaye ngëmam moo gën a for neexaa neexaayu alal bi ci xolam ba tax na mi ngi koy xëcc jëmee àjjana waaye fu gën a for gi mu ko gën a for teewul mu di ko delloo si ba ab demam yéex nekkuy raam aw muy raam di dugg àjjana kon nit ki bu fekkente ne xam na ne xellkat moom ah, alalam ji muy génne lu ko yàlla sant la te sañu koo bañ te bu ko deful loram la bu ko defee it njëriñam la ëllëg te fam koy jëriñee foofa la njëriñ di neexe kon ngëmam googu dana ko dimbali ci mu def war waru yàlla boobu mu ka koor nit ki bu wooree te li mu bëgg lépp mu di ko gis man koo muñ eh, muñ dong ko koy may moo tax yonent bi ne ne asabru nisful imaani kon jullit war na yéene yiw fu mu toll di ko yéene ñëpp war na digle lu baax di tere lu bon fu mu toll. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi da ngeen di abonné ngeen mën a jot moo ne dugal ngir mën a xam li nga xam